allah consul bu Marseille ak association internationale immigrants du Bawol ñoom amal nañ seen tabaski ci foofu nga xam ne moom mooy diwaanu Marseille ci julli boobu nag kàddu yu bari jóg na fa ngir maanaam euh, gëna defaraat li nga xam ne moom mooy nekkinu migrants yi foofu noonu ci diwaan ba وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا gannaaw xutba yi imaam bi nga xam ne ni moom moo foo nekkoon ci xutba bu am solo boobu nga xam ne def na ko ñoom ñëpp nag tënku na ci kàddu ki nga xam ne moom mooy Cheikh Tidiane Ndiaye ay kàddu yoo xam ne ni kàddu cant la ndax conseil bi taxawaayam ci li nga xam ne moom mooy euh, nekkinu migrants yi foofu noonu lu noon ko bu baax a baax ba tax na nag indi na ay laaj tamit ci lu jëm ci passeport yi nga xam ne nii dañ ko daal di yeesalaat mu jëm fukki at. TFM damaa woote fii mais gars yi dañ maa xamal carrément bu dee fii moom kañ damay fekk ñi la gën a déposé ña nga xam ne ni yar na ma ànd wax mooy vraiment foofu bi moom vraiment ba ci ma léegi boo seetloo naa ko ñëw na xam nga su fekkee ne comme damay xeexal immigré yi uh-huh. munuma maanaam am benn ak yow benn relation bi uh-huh. loolu laa ci doon bañ ne moom wax dëgg yàlla ku am ak relation bi tax daf liggéey parce que da nga maa waxoon carrément ne ñu tax a jóg yéen ñëpp da ngeen ñoo ngi jàpp bi ndax conseil bi si la ko moom muy loo xam ne nii nag wax dëgg yàlla ñu rafet am boo gisee lu dul yoon doo ko mën a wax mais vraiment su ma wootee téléphone lañ may wax moom benn wax bi la quoi muy nag loo xam ne nii rafetlu nañ ko muy loo xam ne nii aussi kontaan nañ ko te it bëggoon nañoo laaj aussi affaire passeport bi ndax pétition bi euh, association immigrants internationale di Bawal ñun ñoo ko defoon ak euh, maanaam ak beneen association bu nekk Livorno fa la commencé ñun ñëpp ak député yi nga xam ne ni xam ñu ngi woon ci ñu def pétition bi bañ accordé ñu pétition ñu bëggoon a xam pétition bi maanaam passeport yi commencé na wala commencé ko wala dafa commencé ko fii parce que damaa dégg ñu ne Marseille toujours cinq ans yi fi nekkoon a fa nekk loolu tamit ñu bëggoon fi am loo ne ñun lu ñëpp mën ko consul bi nag yëkkati na ay kàddu daal koy sant di ko gërëm ba baax a baax ci seen teewaay ne moom ubbi na buntam nag ñi nga xam ne ñoom ñooy migrants yi saa su ne suñu soxlaa dara rek ñu mën a ñëw teew waxtaan ak moom ngir mu daal koy saafara ci nu mu gën a gaawee. c'est vrai que président jël décision pour euh, passeport yi ñu nekk dix ans loolu c'est suite à plusieurs recommandations parce que fii dañu am première difficulté bu ñu am fii avec la communauté mooy problème passeport yi bon c'est vrai que réew yu bëri ay 5 ans 10 ans 10 euh, euh, ans 15 ans ñun lañ bëgg lañ lañ bëgg a def sax parce que dañu bëggoon au départ ñu am centre de production fii à Marseille comme ça da ngay ñëw rek pour mu nekk waa Lyon waa Bordeaux waa Espagne ak waa Italie sax dinañ ñëw def seen passeport yi dem bon président dafa jël mesure pour def que des passeports à 10 ans, même si c'est pour réguler. Parce que si on a des passeports à 10 ans, ça va réduire le nombre de renouvellements. Voilà, pour le moment, décret, euh, commencez nous appliquer. Mais une fois que ça sera appliqué, voilà, nous appliquer Parce que sur le local, informer d'abord et surtout mettre, prendre les dispositions nécessaires. Voilà, c'est vraiment de descente di leen gërëm parce que communauté bi euh, consulat rek moo ko mën a association yi seen liggéey liggéey bu taxaw la vraiment liggéey bu am solo la donc man vraiment en tant autorité dama leen di sant ko di leen gërëm di leen encourager aussi parce que suñu communauté pourtant ñëpp di wax Sénégal Sénégal pourtant Sénégal réew bu ndaw la mais communauté sénégalaise moo def euh, différence donc di ñu na xool yi parce que suñu àndul yi suñu nekkul benn duñu def duñu a def dara voilà donc loolu laa bëgg a wax pour dire que vraiment nous sommes là pour les Sénégalais. Nous accompagnons les associations. Nous sommes très sensibles des relations que nous avons avec la communauté. Et euh, s'il y a un problème et que les gens viennent nous voir, informer, c'est dans sens-là qu'on peut, qu trouver des, solutions. Voilà, de, dire que vraiment le constat est ouvert à tous les Sénégalais. Voilà, yéen vraiment ñoom ku nekk daal lu mu am pour idée comme idée na ñëw nañu waxtaan ñu def ko. a décider. Voilà, ne décidera pas sans vous. mu nekkoon tabaski boo xam ne ni ñoom ñëpp gannaaw ba ñu dajee saafante yëkkati nañ ay kàddu mbégte daal di julli ci jàmm ak salaam ñaan tamit ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci diwaanu Sénégal ñu mën leen a ñaanal bu baax a baax ba seen nekkin foofu gën a yemb